ginnaaw bi ngeen jàppale nag euh, coalition Diomaye président ñu ngi fii teg nañ seen gouvernement ak yëpp ñëpp ñu ngi laajte PDS lan lay xaar vous avez sorti communiqué hier ngeen wax que ne yéen seen but c'était juste de voter contre Amadou Ba loolu moo taxoon PDS jóg. lan hmm. la PDS di xaar. très bien. PDS en vérité lan ngeen waxante lan ngeen waxante. non en vérité. Hmm. PDS waxantewul ak Bassirou Diomaye Faye sur des accords politiques. Okay. c'est un c'est un c'est un vote véritablement. sans condition wala boog sans conditionnalité. Mhm. notre problème c'était seulement de défaire le régime de Amadou Ba. wala boog de Macky Sall. Mhm. pour des raisons politiques connues d'ailleurs. Mhm. kenn du laajte lan la régime Macky Sall def Ablaye Wade wala la lu mu def PDS. ñaata yoon lañ fi tëj ña nangami carte ci PDS. ñaata yoon la jël ay liste naan ñii ay sàcc lañu excusez de l'expression mais c'est ce qu'il disait. pour être pour être honnête avec les gens. alors jël fii créé daal di bind liste vingt cinq personnes kenn lañ ci invité mooy mooy Karim Wade. Mhm. déporté ko sept ans huit ans mu ngi ba extérieur te mënu ñëw. Mhm. ñu sos def lu ne lu ne lu ne ak yenn ak yenn ak yenn ak yeneen donc c' est pour simplement notre principal objectif c' était d' abord vraiment de de de de faire tomber ce régime là et puis reconstruire l' état de droit. ok reconstruire l' état de droit. Mhm. fexe ba li nga xamante ni également mooy chômage yu xale yi. ñu ñu liggéey ci bu baax a baax a baax a baax. fexe ba également li nga xamante ñoo ko moom suñu bopp ñu bañ ko brader mu bañ a dem entre les mains étrangères. Mhm. ñu am suñu autonomie suñu indépendance en quelque sorte. Mhm. c'est c'est relatif parce que les pays dañu dañu dañu jëflante y a des accords y a des protocoles il tout cela mais quand il y a un minimum n'est-ce pas boo xamante war nañ ko mën moom moomal suñu bopp. donc ñun ñu woon dem ci gouvernement bi j'ai vu effectivement seen collègue yenn journaux yi bind ko. Mhm. parce que ñun. bu ñu dugg ci gouvernement dañ ko assumer je rappelle ici que le 8 euh, avril 1991. Mmh. première date d'entrée de notre parti dans le gouvernement de Abdou Diouf mais cette entrée-là a fait l'objet d'un large débat mhm. au sein de notre groupe politique au not au sein de notre bureau politique mhm. dañ ci waxtaan du matin au soir ñu débattre ko ba ba ba ngoon ba 23 heures jëm minuit mhm. ñu soogee am accord ñu jox carte blanche au président Abdoulaye ñu ne on est le parti est d'accord pour que ngeen dugg dans le gouvernement mais à condition que lii ak lii ak lii ak lii ak lii y avait des conditionnalités mm-hmm. ñu dugg avec cinq ministres Abdoulaye en était le ministre d'État auprès du président de la République mais duggaat nañ ci également le 15 mars de mille euh, 1995 également suñu deuxième entrée également mm-hmm. loolu yooyu bu ci nekk dañ def l'objet de discussion donc dañ ko waxtaane le père ne se cache jamais l'UPS prend toujours ses responsabilités donc bu fekkoonte ni tey am lu ñu doon waxtaan ak euh, les nouvelles autorités mais kon du ñu du ñu du ñu naan dañuy yónnee ay liste non ay caaxaan loolu l'UPS ne fonctionne pas comme ça l'UPS ne fonctionne pas comme ça moo tax nous avons sorti un communiqué officiel du parti wone ni loolu amul dara amu ci ay waxtaan rek la te wax dëgg fa yàlla ko xam dëgg dëgg da xam ni parti bu man assumer ses responsabilités la duñu laxtu duñu ñu foncé quitte à en prendre li ñu siy jël mais duñ laxtu duñu duñu wóoraan loolu moom suñu suñ mbir la